alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Malben et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune information la Faydatu Tijaniya. yal na leen ko yàlla may ci barke bés bii nga xam ne. bési àjjuma la lu nekkan ci biir. bési àjjuma la lu nekkan ci biir. ci ci ay ngëneel. ci ay ngëneel. yal nañu yàlla may ngëneel yooyu. yal nañu yàlla may ngëneel yooyu. bokk na ci ci ñun. bokk na ci ci ñun. mooy bés bii. muy bés bii. xamstaasha rajab xamstaasha rajab ah. waaw suba comme suba. guddi gi ñu guddi gi ñu nar a daan dajee Taïba di màggal Cheikh Ibrahima. guddi gii. ñu daan dajee Taïba. giñ daan dajee Taïba. di fàttaliku Cheikh Ibrahima. di fàttaliku Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. guddi googu suba la. guddi googu suba la. bon nag. kon nag. ñu ngi ndokkeel mbokk yépp ñu ngi ndokkeel mbokk yëpp. ne guddi gi. ne guddi gi. bu amul ni mu daan amee ci Taïba itam. bu amul ni mu daan amee ci Taïba itam. ñu ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla. di leen ñaan yéen tamit. di leen ñaan yéen itam yéen taalibe yëpp. ngeen bàyyi ko ci seen xol. ngeen bàyyi ko ci seen xol. la daan def ci ay ñaan yëpp. la daan def ci ay ñaan yëpp. bu leen ko bàyyi. bu ko bàyyi. la ngeen daan def ci salaatu ala nabi. la leen ko bàyyi. bu ko bàyyi. alxuraan yi ngeen daan jàng. alxuraan bu leen ko bàyyi. ndax su fekkee ñun ñu ngi fii ci àddina bi. ndax su fekkee ne ñun ñu ngi fii ci àddina bi. ñun ñoo sori. ñun ñoo sori. waaye ñoom ñoo ñu gën a jege suñu. waaye ñoom ñoo ñu gën a jege suñu borom. ñoo ñu gën ñoo ñu gën a jege suñu bopp yi itam. ñoo ñu gën a jege suñu bopp yi itam. ndax li ñu am yëpp ñoom lañ ko jox. li ñu am yëpp ñoom lañ ko jox. ñoom lañ ko jox. ci mbëggeel. ci mbëggeel. ak yaakaar. ak yaakaar. ak bëgg dolleeku. ak bëgg a dolleeku. kon ñoom. kon ñoom ñooñu gën a jege suñu bopp. ñooñu gën a jege suñ bopp. kon seen jege googu. seen jege googu. yal na nekk jege jege jege jege yërmande. yal na nekk jege ak yërmande. jege barke. yal na nekk jege ak barke. jege dolleeku. yal na nekk jege ak dolleeku. jege. yal na jege. boo xam ne. boo xam ne. yàlla dina ci maye. yàlla dina ci maye. ñoom liñ ba liñ daan bëgg a dundal. ñoom liñ daan bëgg a dundal. ci diine ak mbaax. ci diine ak mbaax. yàlla nañu ci saxal. yàlla nañu ci yàlla saxal. te dëgërël ñu ci. te dëgëral ñu ci. bu fekkee àgguñ ci ñoom itam. bu fekkee àgguñ ci ñoom itam. ñu àgg ci ñoom ci yéene ak bëgg. ndax àgg ci ñoom ci yéene ak bëgg. ndax yàlla nee na. ndax yàlla nee ñi nga xam ne gëm nañ. ñi nga xam ne gëm nañ. ni seen baay yi gëmee woon. ni seen baay yi gëmee woon. dañ leen di yéegal ci seen baay yi rek. dinañ leen yéegal ci seen maqaama baay yooyu. yal nañu yàlla defal loolu. ñu ngi dajaat bés bi ñu ngi dajawaat bés bi. sëriñ bi na ñu ngi dajawaat bés bi. ngir topp rek ay ndigal yàlla. ngir topp rek ay ndigal yàlla. ndigal yoo xam ne. ndigal yoo xam ne. suñ njëriñ rek. suñ njëriñ rek. moo tax yàlla digal ñu ko. moo tax yàlla digal ñu ko. ay xale ma doon laaj démb. ay xale ñu ngi ko doon laaj démb. ay xale intellectuel yi. ay xale intellectuel yi. inna xalaq naa inna wa ma xalaqtul insa wal jinna illa li yaabuduuni mu ne ma loolu mooy lan mu ne moom loolu mooy lan ñu ne ko loolu mooy lan ma ne loolu mooy yàlla nee na mu ne loolu mooy yàlla nee na man maa leen bind yéen nit ak jinne man maa leen bind yenn nit ak jinne caabi aljanaa ngi nii ci seen loxo caabi aljanaa ngi nii ci seen loxo te mooy jaamu yàlla te mooy jaamu yàlla ñu yàlla dig yëpp li ñu yàlla dig yëpp mu ñu ko dig ci kaw mu ngi ñu ko dig ci kaw gëm ko gëm ko ak liggéeyal ko ak liggéeyal ko kon nag loolu mooy caabi kon loolu mooy caabi. bunt yi nga xam ne yi dig nañu ko yëpp ci yiw. bunt yi nga xam ne dig yàlla digg nañu ko ñun jaami ñun ñëpp ci yiw ci àddina ci àddina ak ci àllaaxira ak ci àllaaxira caabi jaa ngi noonu caabi jaa ngi noonu maa xalaqtul jinna maa xalaqtul jinne wal insa wal insa illaa li yaabuduun illaa li yaabuduun caabi ngëneel yaa ngi caabi ngëneel yaa ngi noonu ñuy àggale ci yàlla moo ñuy àggale ci yàlla ci zaahir ak ci baatin ci zaahir ak ci baatin yal nañu yàlla xamal yal nañu yàlla xamal te dëgëral ñu te dëgëral ñu te jëriñ ñu ci lim ñu xamal te jëriñ ñu ci lim ñuy xamal ci zaahir ak ci baatin ci zaahir ak ci baatin at a ngi nii ñëw daan nañ dajee ñun ñëpp tay ba at a ngi nii ci gannaaw daan nañ daje ñun ñëpp tay ba ku nekk yaa ngi dajee ku nekk yaa ngi daje. ak sa ak sa bëgg yàlla. ak sa bëgg yàlla. ak bëgg a dolleeku ci yàlla. ak bëgg a dolleeku ci yàlla. ku nekk yaa ngi ñëw. ku nekk yaa ngi ñëw. te kenn waxu te kenn waxu la kaay. teew yaa jot na rek nga jóg def li nga mën pour dem. da ngay xam ne jot na rek nga dal di jóg def li nga mën pour dem. loolu yëpp. loolu yëpp. mooy dëggal. mooy dëggal. li yàlla wax ne. li yàlla wax ne. inna allaha ishtara min al muminina anfusahum wa amwalahum li yàlla wax ne man jël jënd naa jullit ñi. li yàlla wax ne man. jënd naa bakkani jullit ñi. jënd naa bakkani jullit ñi. ak seeni alal. ak seeni alal. fayam ëllëg li ma leen koy dellooyee. fayam ëllëg li ma leen koy dellooyee. mooy danaa leen dugal aljana yéen ñëpp. mooy danaa leen dugal aljana yéen ñëpp. yal nañu ko yàlla may. yal nañu ko yàlla may. daje yooyu moo ñu daan yóbbu Taïba. daje yooyu moo ñu daan yóbbu Taïba. ngir. ngir fàttaliku nit yiw ñi. ngir fàttaliku nit ñu yiw ñi. am na lu ci yàlla am na lu ci yàlla digle. am na lu wax. am na lu ci yonent wax. Euh, fàttaliku leen. fàttaliku leen. dafay wàcce yërmande yàlla. dafay wàcce yërmande yàlla. ci kaw jaami yàlla yi. ci kaw jaami yàlla yi. yërmande googu. yërmande googu. yàlla wax ñu ko. yàlla wax ñu ko. dajawuñ tayba ci suñuy jëmm. dajawuñ tayba ci suñuy jëmm. dajawuñ tayba ci suñu jëmm. waaye ñu ngi dajeeg tayba ci suñuy xol. waaye ñu ngi dajeeg tayba ci suñu xol. ñu ngi dajeeg tayba ak suñu ittee. ñu ngi dajeeg tayba ak suñuy ittee. ñu ngi tay dajeeg tayba ak suñuy ñaan. ñu ngi dajeeg tayba ak suñuy ñaan. tey jii tey jii. dégg na jàng naa ci YouTube bi. sëriñ bi nag jàng na ci YouTube bi. ci kilifa yi nga xam ne kilifa àdduna bi yi nga xam ne ñooy sàmm feebar bi. ci kilifa yi adduna bi nga xam ne ñooy sàmm feebar bi. mu ne. mu ne. feebar bi jeex na. feebar bi jeex na. mais yéen yéen yéen ñi ko seq. gouvernement yi yéen ñi ko seq gouvernement yi. lu tax waxu leen seen seen population yi ne leen feebar bi jeex na. lu tax waxu leen seen population yi ne leen feebar jeex na. xabaar bu neex la. xabaar bu neex la. xabaar bu ñëpp ñu bëgg koo dégg la. xabaar bu ñëpp war a dégg la. ñun tamit ñu koy dégg. ñun tamit ñu ngi koy dégg. di leen ko déggal. di leen ko déggale. ndax ñu ñu ñu bég ci yàlla ndax ñu bég ci yàlla buñ bëggee ci yàlla yàlla dolli ñu buñ bëggee ci yàlla yàlla dolli ñu boo bëggee boo bëggee ci yàlla di nga ko gërëm boo bëggee ci yàlla yow jàmm bi di nga ko gërëm te yàlla nee na boo ma gërëmee rek ma dolli la te yàlla nee na boo ma gërëmee rek ma dolli la yal nañu yàlla dolli yal nañu yàlla dolli ci sànku feebar bii ci sànku feebar bii ci sànku feebar bii ci àddina ci sànku feebar bii ci àddina ak ci ak ak ak ci ak ci Sénégal ak ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp ak ci àddina bi yëpp dégg naa itam beneen xabaar. sëriñ bi ne dégg na itam beneen xabaar. wax nañ ne Kaolack. ñu ne wax nañ ne Kaolack. moo gën a mucc. moo gën a mucc. ci feebar bi. ci feebar bi ci Sénégal. ci senegal loolu itam ay ngëneel la. loolu itam ay ngëneel la. ay mbaax la yoo xam ne. ay mbaax la yoo xam ne. li ñuy def di ko jaamoo yàlla di ko ñaan. li def di ko jaamoo yàlla di ko ñaan. buñ ko bàyyi. buñ ko bàyyi. buñ ko xeeb. buñ ko xeeb. parce que yàlla wax ne. ndax yàlla wax ne. teg naa ci lax teg naa ci seen loxo. teg naa caabi. ak ci samay ngëneel. ak ci samay ngëneel. illaa li yaabuduun mooy yàlla ngeen di ma jaamu rek. mooy ngeen di ma jaamu rek. loolu la mayoon yonent. loolu la mayoon yonent. yonent yëpp lim leen may. yonent yëpp lim leen may. dee leen ma jaamu di ma ñaan. dee leen ma jaamu di ma ñaan. loolu rek la leen may. loolu rek la leen may. kon tam ñaan googu loolu mu leen mayoon. kon ñaan googu di loolu mu leen mayoon. ñu ngi fi ba tey. mu ngi fi ba tey. del jaamu di ñaan. del jaamu di ñaan. ki ngay jaamu jar na ko. ki ngay jaamu jar naa jaamu. ki ngay ñaani itam am na ko. ki ngay ñaan itam am na lu mu la jox. te li ñuy ñaan. te li ñuy ñaan. lu mu bëri bëri bëri. la muy bëri bëri bëri. ca moom du dara. ca moom. du dara. yal nañu ko yàlla may. yal nañu ko yàlla may. yal na yàlla sànq feebar bii ci Sénégal ak àddina bi yëpp. yal na yàlla sànq feebar bii ci ak ci Sénégal ak àddina bi yëpp. yal na yàlla yokkuñu. yal na yàlla yokkuñu. yal na yàlla dimbale ñu. yal na yàlla dimbale ñu. yal na yàlla taxawuñu. yal na yàlla taxawuñu. yal na yàlla barkeel suñuy taxawaay. yal na yàlla barkeel suñuy taxawaay. ci zahir ak ci baatin. ci zahir ak ci baatin. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu suñu Sénégal. Sénégal. senegal xam leen ñun ñëpp nañ xam ne. ñun ñëpp nañ leen xam ne. Sénégal rek la am. senegal rek la ñu am. bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul. Sénégal bu yàqoo population bi yëpp la yàqul. lii lii yenn xale yi di waaj. lii yenn xale yi di waaj. buñ ci dugg. buñ ci dugg. ndax am na loo xam ne buñ ci duggee. ndax am na loo xam ne buñ ci duggee. am na nit ñoo xam ne. am na nit ñoo xam ne. yàkkamti fuñ bëttee rek dem defe ay lañ yàkkamti. yàkkamti fuñ bëttee rek. dem defe xay lañ yàqamti. te buñ déggee Sénégal a ngi commencé am yu mel noonu. te buñ déggee ne Sénégal a ngi commencé di am yu mel noonu. waaw mënatuñoo garanti suñu bopp de. su boobaa mënatuñoo garanti suñu bopp. ci sécurité ndax ñooñu ñu ngi ame arme. am na ñoo xam ne ñu ngi amee arme. ñu ngi amee xaalis. ñu ngi ame xaalis. ñu ngi amee lu nekk. ñu ngi amee lu nekk. yàkkamti rek. yàkkamti rek. gis foo xam ne mën nañ ko faa yóbbu rek. gis foo xam ne mën nañ ko faa yóbbu rek. ñu yóbbu ko fa. ñu yóbbu ko fa. kon nag loolu buñ ko may buñ ko may ñooñu kon loolu bu ñu ko may ñooña buñ leen buñ leen jox suñu réew mi ñu sànk ko buñ leen jox suñu réew mi ñu sànk ko li ñuy yaakaar ci réew mi am ko ci alal ak yooyu li ñuy yaakaar ci réew mi am ko ci alal ak yooyu buñ leen ko may ñu sànk ko buñ leen ko may ñu sànk ko nañ leen sàmm suñu bopp nañ leen sàmm suñu bopp idéologie yi xeexal yëpp du dara idéologie yi ñuy xeexal yëpp du dara amut amut li am li am mooy nit ki mooy nit ki ak dogoom ak dogoom ak li mu bëgg a def rek ak li mu bëgg a def rek te suñ dogu te suñ dogu ak li ñu bëgg a def ak li ñu bëgg a def dëgg dëgg Sénégal wa Sénégal kenn waru ko ci ëppale dëgg dëgg Sénégal kenn waru ko ci ëppale ndax moom rek la ñu am ndax moom rek la am bu ñuy taseeg yàlla ëllëg bu ñu ngi taseeg yàlla bu ñuy taseeg yàlla ëllëg bu ñuy taseeg yàlla ëllëg ci Sénégal la ñuy taseeg moom ci Sénégal la ñuy taseeg moom kon nag kon nag foofu la ñuy dëkkale ndax foofu la ñuy dëkkale ndax foofa la ñuy dëkkale foofu la ñuy dëkkal foofa la ñuy dëkkal foofu la ñu may foofu la ñu may buy taseeg ñun tamit ëllëg foofu rek lay taseeg ñun buy taseeg ñun tamit ëllëg foofu rek lay taseeg ñun kon nag nañ fonk suñu dëkk bi kon nañ fonk suñu dëkk bi yàlla fonk na ko yàlla fonk na ko may nañu ay nit yàlla yoo xam ne may nañu ay nit yàlla yoo xam ne may nañu ay jullit yoo xam ne may nañu ay jullit yoo xam ne bu ñu fonkutoon duñu ko may bu ñu fonkutoon duñu ko may te loolu moo ëpp solo ci ñun te loolu moo ëpp solo ci ñun idéologie yi ñuy xeexat idéologie yi ñuy xeexat parti yi ñuy xeexal ak. parti yi ñuy xeexal ak. yooyu yëpp pertal suñ bopp rek la. yooyu yëpp pertal suñ bopp rek la. nañ seet li ñu yàlla wax ñu ñu def ko. nañ seet li ñu yàlla wax ñu def ko. yéen doomu adama yi yëpp benn ngeen. yéen doomu adama yi yëpp benn ngeen. mën naa leen bind. yàlla moo ñu bind. ki gën ci yéen nag. ki gën ci ñun nag. mooy ki daw jëm si ci man. mooy ki daw jëm ci yàlla. foofu rek la kaaraange nekk. foofu rek la kaaraange nekk. foofu rek la am nekk. foofa la am nekk yal nañu fa yàlla yóbbu yal nañu fa yàlla yóbbu ci kaw yërmandeem ci kaw yërmandeem ci kaw mbaaxam ci kaw mbaaxam nañ jàppale suñu bopp nañ leen jàppale suñu bopp jàppale suñu bopp mooy ñuy jàppale suñu autorité yi jàppale suñu bopp moo ñuy jàppale suñu autorité yi jàppale wuñu màkki jàppale wuñu màkki jàppale jàppale wuñu diw jàppale wuñ diw. suñu réew la ñuy jàppale. suñu la ñuy jàppale te ñoom ñoom la yàlla teg seen loxo ñu jiite ko. ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu jiite ko. kon nag jàppale leen. kon jàppale leen. topp ndigal yàlla rek la. topp ndigal yàlla rek la. nañ leen jàppale nañ leen dëgëral. nañ leen jàppale nañ leen dëgëral. buñ leen buñ def ci seen bopp yi ay xalaat yoo xam ne li ñu war a def sax dootuñ ko mën. buñ leen buñ def ci seen bopp yi ay xalaat yoo xam ne li ñu waroon a def sax dootuñ ko mën. buñ def ci seen bopp yi yéene ko. buñ def ci seen bopp yi yéene yi amoon pour ko. pour defal ko soppi ko yéene. ñu soppi ko yéene. defaat ndar seen bopp rek. defaat ko ci seen bopp rek. loolu baaxul. loolu baaxul loolu ci ñun lay bàyyeekoo. loolu ci ñun lay bàyyeekoo. war na ñoo xam ni ñuy taxawee. war nañoo xam ni ñuy taxawee. dëgg la xam-xam dëgg la. xam-xam dëgg la. bu tubaab beeg bu arab bi yëpp benn la. bu tubaab beeg bu arab bi yëpp benn bu tubaab beeg bu arab bi yëpp benn la. xam-xam xam-xam rek la tudd. xam-xam moom xam-xam rek la tudd. ak boo ko mënee làkkee ak làkk boo ko mën a làkkee ak làkk boo ko mën a làkkee. dund bi itam ñun ñëpp ko bokk. dund bi ñun ñëpp ko bokk. ñun ñëpp a ci am. ñun ñëpp a ci am ñun ñëpp ci am ay droit. ñun ñëpp ci am ay droit. ñun ñëpp ci am ay droit. loolu. loolu. war ñoo xam naka lañ koy sàmmee. war na nañoo xam naka lañ koy sàmmee. naka lañ koy jàppantee. naka lañ koy jàppante naka lañ koy dëgëralee. naka lañ koy dëgëralee. te bàyyi. te bàyyi. dëgg-dëgg ay gis-gis yoo xam ne. dëgg-dëgg ay gis-gis yoo xam ne. gis-gisi ay nit rek la. gis-gisi ay nit rek la. jëmut fenn. jëmut fenn. lii fii des te sax fi. li fiy des te sax si. tey dëggu. te dëggu tey dolleeku. tey dolleeku mooy li ñu yàlla sant rek. mooy li ñu yàlla sant rek. mooy lislaam. mooy lislaam. ak suñu yi nga xam ne doon nañ ko ci suñu maam yeeg suñu bàyyi. ak suñu yi nga xam ne doon nañ ko suñu maam yeeg suñu bàyyi. te kenn ci ñun rëccuwu ko. te kenn ci ñun rëccuwu ko. kenn kenn bëggut a bàyyi li sa bàyyi nekkoon fii. kenn kenn kenn bëggut a bàyyi li sama li sa bàyyi nekkoon fii. xanaa da ngay xeeb sa bopp sax ndax mënu maa def li ñu defoon. xanaa da ngay xeeb sa bopp sax ci man mënumaa def li sama baay defoon waaye nag waaye nag bu ma ko mënut itam bu ma ko mënut itam danaa ci góorgóorlu bañ xam ne góorgóorlu naa ci danaa ci góorgóorlu bañ xam ne góorgóorlu naa ci yal nañu yàlla dimbale yal nañu yàlla dimbale yaara yal nañu yàlla mayal boppam yal nañu yàlla mayal boppam yal nañu yàlla yëkkatil boppam yal nañu yàlla yëkkatil boppam yal nañu yàlla taxawul boppam yal nañu yàlla taxawul boppam yal nañu yàlla nekkal yal nañu yàlla nekkal ku yàlla nekkal am nga lu nekk ku yàlla nekkal yow xam nga lu nekk te ku uti yàlla rek fekk ko fa foo uti yàlla rek fekk ko fa te ku uti yàlla rek ku uti yàlla ku uti yàlla rek am yàlla rek am yàlla yàlla nee na aw ma doom yàlla nee na aw ma doom aw ma baay aw ma baay aw ma nijaay aw ma nijaay aw ma dara aw ma dara am naa xarit am naa xarit sama xarit boobu nag sama xarit boobu nag moo may seet si moo may seet si baay daana si wax mu ne bàyyi daan na ci wax mu ne. néeg bii. néeg bi yàllaa ko moom. yàllaa ko moom bët bu set nga ñëw ci juróomi yoon. bët bu set ñëw ci juróomi yoon. yàlla dana xam ne kii xaritoon na ma. yàlla dana xam ne kii xaritam la. moom itamit dinaa ko xaritoo. moom itamit dinaa ko xaritoo. boo amee xarit bu am ni yàlla. boo amee xarit bu am xarit bu am ni yàlla. dootoo xalaat doo amati sax looy xalaat ndax nekk na fi mu nekkul. dootoo amati sax looy xalaat ndax nekk na fi mu nekkoon. te da ngay gis ne yàlla daf lay màngal yëpp. te da ngay gis ma fa. yal yàlla may. yal nañu yàlla may. suñuy jubluwaay. suñuy jubluwaay suñuy càkkutéef suñuy càkkutéef suñuy bëgg-bëgg suñuy bëgg-bëgg yàlla rek la yàlla rek la yàlla fekk suñu ci may ñu ko yàlla fekk ñu ci may yow yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla sàmmal suñu Sénégal yàlla nañu yàlla sàmmal suñu Sénégal Sénégal nag Sénégal nag Sénégalais bu nekk Sénégalais bu nekk kóllëre la ci sa baat kóllëre la ci sa baat da ko war a sàmm da nga ko sàmm ko sàmm ko. du mooy ngay sàmm ay idéologie du mooy ngay sàmm ay idé ay idéologie du mooy ngay sàmm ay parti du mooy ngay sàmm ay parti waaye Sénégal nga sàmm ko. waaye Sénégal nga sàmm ko. mais sama mbokk Sénégal mii moom la. mooy sama mbokk Sénégal mii. mooy sama mbokk Sénégal mii. fi ma ko mën a faree ma faree ko fa. fu ma ko mën a faree ma ma mën a faree faree ma fa. fu ma mën a faree faree ma fa. ci xol yu set. ci xol yu set ci yéene yu rafet ci yéene yu rafet ci bëgg-bëgg yu kawe ci bëgg-bëgg yu kawe kooku mooy yàlla kooku mooy yàlla buñ nekkee foofu rek yàlla nekkal ñu buñ nekkee foofu rek yàlla nekkal ñu waaye leneen luñ fa nekk di ko utal suñuy bakkan ak suñuy doole lu ñu utal suñuy bakkan lu ñuy utee suñu bakkan lu ñuy ute lu ñuy utee suñuy bakkan ak ak utee ko suñu doole ak utee ko suñuy doole ñu ci am dara duñ ci am dara yëpp dañ koy dañ ko dañuy def ba defee ne àgg nañ rek lépp dañuy foog ne àgg nañ rek waaye buñ àggee duñ fa fekk lu dul dara waaye buñ fa àggee duñ fa fekk lu dul neen rek neen rek lañ fay fekk neen rek lañ fay fekk boo nekkalee nag fi nga xam ne fi nga war a nekk waaye yàlla boo ko nekkalee fi nga war a nekk di nga xam ne nekk nga koo xam ne di nga xam ne yow jàmm bi nekk nga koo xam ne bàyyiwu la benn yoon. bàyyiwu la benn yoon. booy nelaw mu ngi lay sàmm. foo ne rek mu ngi lay sàmm. booy nelaw mu ngi ànd ak yow. booy nelaw mu ngi ànd ak yow. booy yeewu mu ngi ànd ak yow. booy yeewoo mu ngi ànd ak yow. booy lekk mu ngi ànd ak yow. booy lekk mu ngi ànd ak yow. booy naan mu ngi ànd ak yow. booy naan mu ngi ànd ak yow. ak yërmandeem. ak yërmandeem. kooku kenn mënu koo wattal nit. kooku kenn mënu koo wutal nit. yàlla rek kooku rek la mën a doon. yàlla. yàlla rek la mën a doon. yàlla rek la mën a doon. yàlla yàlla nekk suñu yàlla. yàlla na nekk suñu yàlla. Seydina Aliou waxoon na ne. Seydina Aliou waxoon na ne. yow yàlla. yow yàlla. yaay sama buur. yaay sama buur. nangu naa ko. nangu naa ne yaay sama buur. maa ngi koy puukare woo. maa ngi koy puukare woo it. ndax yàlla yow tamit nangu nga ne man sa jaam la ndax yow yàlla nangu nga ne. man tam sa jaam la koy puukare woo. booy puukare woo booy puukare woo yal nañu yàlla may loolu yal nañu yàlla may maqaam woowu yal nañu yàlla nangul yal ñu yàlla nangul te yal nañu nangu itam te yal nañu nangul itam yal nañu boole ci ñim teralal boppam yal ñu boole ci ñim teralal boppam ndax moom rek am teraanga ndax moom rek moo am teraanga salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah